221 Diaspora 221 Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. Ami internaute Diaspora 221 di leen ziar di am mbégte euh, euh, gis ngeen nag euh, tey ñu ngi fii ci cité Alioune Sow particulièrement cité douane ñu ñëw ci ndogu Keba ah, Seck bu Sénégal Keba Seck la Faramareen ah bokk ci musique Sénégal di ko doxal gis ngeen ñi nga xam ne ñooy fan ci Keba yi ñu ñëwee ci ndogu Keba Keba lan moo waral li nga xam ne moo nekk acte social bi Keba famille di ko def ah, Ziko gis nga li nekk sama ginnaaw ndogu famille bi ah, wax naa ko léegi samay njëlbeen wax ah, yaa huit ans de cela Keba famille di ko organiser maa ngi ni nag jàkkaarloog mu na mu ngi noonu acca <laughs> si la artiste bi yàgg sa ay fans say xarit say ngeen organiser li nga xam ne mooy ndogu Keba Family huitième édition Keba laataa ñu ñëw ci loolu dama lay bàyyi nga nuyu internetu diaspora 221 yi waaw internet diaspora 221 Cheikh Babacar ah waaw sëñ bi maa ngi lay siyaar bu wér bi dama jékki-jékki gestu gis la xaw ma loo fi nag xaw ma ah ok dañ Adama Mbaye Baye Ahmed Sall Chéri Adama mu nga xam ne borom Bellevue ah ok séeréer yi ñu laan sopp waaw ah, ñu laan ko nafisatu ñu laan d' euh, comme waxee léegi Keba laataa loolu ñu ngi jégalu nga baal ah. euh, tey nag nga ñëw sa koñ ah. nga xam si ngeen koy def mais huitième hmm. édition waaw huitième donc c' est pas euh, donné à n'importe ku mu mën doon n'importe qui ou n'importe comment comme ni ñu koy waxee donc mën nga def benn doo ko tulanti donc bu yàlla dogalee ci ndimbalam suñu borom mu may ñu def ba àgg ci juróom-ñett ñaan ko huit loolu ak sant la bi ñu koy démarré fii boobu ñu ngi doon ñu ngi doon def ay tuuti ginaar tuuti yàpp jënd cotiser fii jàmm yaa mais comme ñi ngi yegg ci def naa ak si quatre quatre à cinquième ñu ngi ñu ngi jënd nag di ñaanale jënd yeneen nag donc kër gi laa dëkkoon donc comme dama dëkkoon kër kon moom dama kër gi kër gi bi soob donc ma dëkk fekk son euh, borom kër gi nekk faa ku ñuy wax faama ku baax ma ngi luyee woon ndeysaan ji ma luyee ba di ma jox xaalis bëgguma lool donc fa la dëkkoon donc koñ koñ bi ma yàgg fi nag donc ma ne comme fi laa ko defee fi laa ko njëkkee même su ma toxoo dama ko fi continuer loolu mooy ni chaque année ñu koy def euh, muy ñëwaat fii ñu koy def waaw c'est normal parce que waa koñ bi koñ bi daa am lu ma def te daa am su ma teg te dañ maa jàpp xam nga macha allah mais ñu ñëwaat. ci ci ndogu bi première année bi lan moo waraloon objectif bi lan la woon lu taxoon Keba ak famille jékki-jékki ren dañuy organiser benn ndogu chaque anne ñu koy def. ba ñu ngi ci huitième édition bi parce que c'est pas facile lu mel ni taxaw. bon li ko waral ban na xam nga yaay wax léegi ne weeru koor weeru balante ak weeru ndimbalante jàppalante pour man du weeru koor képp c'est tous les mois tous les jours tous les semaines. et cetera donc weeru ko nag man maanaam dafa dafa gën a bëri dafa mën a mën gën a bari yërmande et que weeru koor xanaa xamoon na dépense yi ñu def nii ñun euh, te di ko def avant weeru koor weeru dafa waroon gën a wàññeeku économiser mais sa demande sénégalais xam nga sénégalais ni mel day xër dafay ëppal ci de ci weeru koor ngay gën a ngay gën a def ay dépenses yoo xam ne bu lu weeru doo ko def te alors que il paraît que dégg naa donc c'était pour diminuer sakkanal waaw mais c'est dommage fii gars yi lépp lépp lépp lañ bëgg a lekk waaye moom da ngay mër mais suñu borom xam nga et ku nekk da nga da nga bëgg da nga def lu baax bien faire te bu demee dans dans les mosquées juma gars yi jikko yi day changé dañuy baax dañuy dañuy a muñ dañuy yaatal dañuy nangu bu ñu fa jógee da ngay mër hmm? bu demee ci armée jikko day changé ñëppay baax ñëpp triste ñëppay bu ñu fa jógee da ngay hmm? solo maanaam ndogu li li ko waral mooy booloo doon benn ànd waaye tamit bokk bëgg bëgg bëgg ah, jamono ji à nos jours Sénégal hmm. situation politique bi en tant que porteur de voix coow li bëri na coow li bëri na porteur de voix tey lan moo sa gis-gis si réew mi yow au départ dama xam déjà say question lan la mais xam nga comme nag ma waaxu et puis comme Babacar xam nga dèjà waaxu xaw ma waaxu nii rek. non mi ngi bëgg a métti parce que man sama bëggee nii. ah ah vas ah. bon en tant que porteur de voix situation dëkk bi. Ah, gis nga ko ah, Kéba nit ñi dañ koy bàyyi xel quoi qu'on dise. Euh, réew mi nag euh, politiciens yi du ñëpp mais ñenn ci politiciens yi. muy ku jeg gi di parti au pouvoir jour dañuy coowoo ba sénégalais yi nii am nañ njàqare ci réew mi. waaw xam nga côté boobu bon. Euh, Sénégalais bu ne da nga am droit wax ci sa xalaat am nga droit aussi tiit jaaxle te waruñu yegg foofu moom ba na ay Sénégal lañ ay jullit lañ ñu ne réew mi réew référence la kon ñu waruñu am polem boobu bañ ak Lamine nag mën nañ dëkk des fois ñu xaw a kii mais muy pouvoir u parti opposant beeg parti pouvoir noo dañu war a bàyyi xel je pense que bàyyi nañ xel que nit suñ borom mooy fal mooy folli mooy joxe mooy able mooy nangu mooy dénkaane mooy def lépp ki war a nekk président da nekk par force kenn muñ da ak bu ñëpp doon dee sax moom képp moom képp mu ñëw man Italie moom ma nekk président donc on n'a pas besoin pour euh, tous tous ces trucs là donc appui nit ñi ñenn ñi ci jaaree di. ok c'est normal doo doo doo xam doo xàmmee ok di di Samba Boy et léegi nag seen communication ñoom d'abord ñoom seen communication il faut ñu koy xoraat bañ a moom bañ a agressif bañ a indi loo xam ne nit mën na ci euh, gisee fitna ak yeneen ak yeneen et puis ki nga xam ne moo jiitu suñu borom moo ko jiital moom bu ala kulli xaal day jeexal. ci nii day jeexal ci naa day jeexal waaw bu waaw bu jot bu dar ba jotee rek suñu boroom même bëgg naa bëggul ak moom suñu borom moo ko jeexal indi keneen ko ko ko neex ki bëgg a ñëw tamit pour kooka jóg moom tamit na def dal tey véhiculer message boo xam ne nit nañ ko naw nañ ko bàyyi xel dinañ ne ah kii pourquoi pas pourquoi pas ñu essayer kii dal na kii baax na parce que Macky Sall le président Macky Sall euh, bi avant muy ñëw pouvoir lu lu ko gay waxal dal tey doo doo ko dégg dal tey yaru baax lool loolu lañ wax loolu la wane waaw loolu moom bokk xëy na bokk na ci ko fal waaw le kenn kenn ne moom da nga bëgg a ñëw mais yow dalal rek te may et puis même boo ko defee non na nga ko jëfee nag dalal boo toogee pouvoir non dalal yërëmal nit ñi sénégalais soo ko bëggee am da nga yërëm boo mu sentir ba mu xam ne wax waxuma nga toog fee yërëm ko de ba mu xam ne da ko yërëm da nga koy dimbali ba mu xam ne da nga koy yow yaa ngi koy dimbali da nga koy jéem dimbali ba mu xam ne yaa ngi sax au moins yaa ngi jéem sénégalais yi yomb naa téye comprendre bi dafa cher nga fexe ba wàññi ko ba moom mu sentir ko dund bi dafa cher nga fexe ba mu wàññi ko ba moom mus xam ne yow miy jàmbaar nga courant ndox et no par force bu boo élection jotee yow jarul nga wër yaay gagné mais nañ ko sentir ba ñoom ñu xam ne non li mosu leen am. dan la koy waxal. loolu leer loolu na du leen la wax. dañuy ñëw ci projet Kébaay parce que temps amul te léegi ndog jot euh, am nga ñaari dat yooyu waajal Gambie ak fii Grand Théâtre ñu ñëwaat ci projet yooyu noonu. kon yëngu dat yi. non dat yi xam ne. moom nga moom moo gën a fës fu mu ne nii. non dat am na. <laughs> Euh, non yooyu yëngu dat yi. mais Gambie bi ak Grand Théâtre bi ñu ngi ñu ngi jëm incha allah le jour jour Korité xombol. ok jour Korité lañ jëm xombol incha allah Gambie bi moom mooy bu ñu lendemain mooy éleg comme Gambia la ñuy wax éleg Korité ah second day first day donc moom mooy jour Korité xombal bu ñu Korité ba suba sa Gambie bu ñu bu ñu jógee Gambie le sur lendemain Korité ña nga jëm Mbacke Mbacke bool ci ci ci ànd ak ba Massa Massi la ak Babacar Babacar donc suñ fa jógee nag xaw a Ndakaaru benn peut-être mais dañuy taxaw jëm ci euh, non ñu ngi jëm aussi Tëngéej. Tëngéej Tëngéej Camp Sapeur. ñu ngi jëm aussi Louga. donc loolu lépp avant avant le vingt mai. avant le 20 mai parce que avant le 20 mai dañu war a taxaw. pour grand théâtre bi. mais maa ngi jëm incha allah juri corté xombal ci suba sa. Gambia ci ginnaaw suba sa. Mbacké incha allah. mais suñu fa jógee damay def euh, Tëngéej ak Louga. doog a ñu def pause jëm grand théâtre le 20 mai incha wax ñëw na ne rek lay def. non ko waxuma ko. xale yaa wax. non ko de. mais Thiaw yi joxante naa ci biir rek parce ah. fay. tur Gan Siri Diop. Gan Siri ah. bokk ci Keba famille ah tey ngeen organisé huitième édition euh, ndogu. Mm-hmm. ah fii nii si nga xam ne mooy parcelle euh, cité Aline Sow euh, lan moo waraloon objectif bi ngeen def ko pour ànd a Keba Seck. waa Keba Seck dafa nekk ku baax ku ñu bëgg ku ñu yëg nekk sama papa sama nijaay di sama lépp man dama ko féetale sama lépp parce que mooy sama waykat mooy sama xarit bañ naa ko ba ñëpp sax ñu bëri ñu xam rek. ci moom moo tax nag maa wax dëgg yàlla Keba baax na oyof na bëgg na euh, kii woom te nee naa li mu mën ren yal na ko man déwén ci barke Seydina Mouhamed yan na ko yàlla yokk képp ku fi ñëw tamit lu la fi indi rek yal na la ko yàlla fay ci barke Seydina Mouhamed waaw. loolu woon sa diggante Keba Seck. sama xarit la nekk sam papa euh, jox ma cër xam maay kan jox ma tamit lima moom. xeebu ma te nee naa la son yu njëkk a way ay doomu aadama ci laa bokk man ñu njëkk a way man mii ci laa bokk wax dëgg neex yàlla mu daal may sëggil fépp nag nekk sama nijaay nekk sama xarit sama lépp la daal. waaw li may ñaan yal na ko yàlla may. wér ak wérle jërëjëf. Mm. merci gars jërëjëf waaye a ngeen jëf. ñu ngi leen di ah, di am mbégte jàkkaarloog yéen ah, fii ci li nga xam ne moo nekk Nouvelle Vision 313 ak Diaspora 221. Ah, tey nag ñu ngi fii ci diwaanu cité Alioune Sow Kéba Seck di doon organiser li nga xam ne mooy ndogu Kéba Family nekk huitième édition. ñu ngi jàkkaarloo ñi nga xam ne ñooy àndandooru Kéba Seck nekk ay conseil bokk ci staff lépp ci Kéba Seck sëñ bi maa leen di fay. Sange. Ah? man la Sange. Ah, Sange ah. tey lan moo waraloon sa teewaay fii ci li nga xam ne mu nekk ndogu Keba famille bi. waaw waaw dañoo ñëw def suñu teewaay def ak de présence bu rafet euh, parce que Keba moom xam nga lu lu mu dugg rek ak lu luñ koy tuddee wala lu mu bokk rek ñun ñu ngi ci. te lii daa fekk mu nekk loo xamante ni ñoom dañ koy yàgg def chaque année bi mooy huitième édition bi kon c'est normal ñu ñu teew. ñu ñëw def suñu présence. macha ngeen def seen présence mbir mi am réussir totale kenn ku nekk jóge fu nekk ñëw ànd ak Keba mais lépp lu ñuy dégg ci Keba témoignage si benn la Keba dafa baax dafa gore day dimbale ay nitam. waaw loolu am na loolu am na xam nga àdduna moom nit moom defe naa ni fii kenn joxul kenn mu lekk kenn joxul kenn mu naan nit ñi liñ gis rek la ñuy apprécier liñ gis rek la ñuy wax bu loolu amoon tamit defe naa nit ñi duñ ko témoigner. comme nag comme ko loolu la nit ñi témoigné rawatina nag ñu ñi nga xamante ni ñoo ko jegee di nekk moom tout le temps comprendre nga ku baax la nit la nit parce que xam nga bu ñuy wax nit rek dafa jafe mais nit la dafa am lépp lu ëmb nag li ñuy xool lu ñuy xool ci nit yëpp ñu ci moom macha allah. moo tax suñu ànd ak moom ñu gën a féddali suñu kóllëre ak moom waaw jërëjëf hmm. euh, Paco euh, dégg nga li nga xam ne moom la sa naataango bi wax ci Keba euh, par rapport ak événement bi nga xam ne organisé nga ko weeru koor ñëppay joxe ndogu mu nekk lu baax ñun jullit di ko def waaye rawatina artiste def ko ku wax artiste wax ko porte de voix ku wax artiste wax dimbalakat asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen nag maa ngi leen sant di leen gërëm seen tawaay tamit aussi rafet na mais boo gisee lii am Ah, ñun ñëpp mun nañ jàpp ne Kéba mboo ñabootee lii lépp li fi nekk lépp tey macha allah mu doon loo xamante ne weeru koor ñu bare ñooy bëgg a pour def lii mais nag alhamdulilah rabil alamin ndax keebaa moom defe naa ne mënuñu wax ci ci moom ñun ñi nga xam ne dañ koo jege mënuñu wax ci moom ndax dafa doon nit koo xamante ne bu fekkente ne baax la mu ngi ci moom bu dee gore la tamit aussi mi ngi ci moom ci lu jafe ci doomu aadama ndax mbooloo mi xoolal mbooloo mi fi nekk lépp koo wax mu ne la Kéba dafa baax Kéba baax macha allah mu doon koo xam ne tamit aussi ci ñun mënul jóg di def dara te laaju ñu mënul jóg teg tànkam fenn te ànd ñoog moom jóg balaa moo jóg sax dina laaj ndax sànga mi ngi fi ndax pakoo mi ngi fi loolu tamit dañ koy sante yàlla suñu borom ndax ay nit bu suñu borom boolee te li ñuy en fait li indi boole bi dëgg la ci ñun te euh, euh, dafa doon koo xamante ne tamit aussi ci ñun maanaam mënul mënul jóg di dox te gisuñu mënul jóg di même bu añu këram sax bu paree tant que euh, Kéba Sange taxawul wala Paco taxawul mun naa wax ne ndabu añ bi kenn du ko ubbi loolu nag dañ ko koy sante di ko ko bu baax di wax tamit li nga xamante ne moom lañ tegu muy yoon ak ci li muy yëngu ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom sunu borom jëmale ko ca kaw ca kanam ndax dafa doon ko koo xamante ni ku baax la. yéen tamit wax dëgg yàlla du c'est la première fois yéen tamit macha allah fu ñu mës a dem ci événement wala lépp lu mun munti demee rek yéen gis nañ leen fa. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm macha allah wasalaam jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. Euh, Fallou. Kéba moom. moom Kéba moom. waaw. baax na. baax na waaw. la. moom. mu jox ñam benn moom moom moom. tey ñu fekk la fii ci li nga xam ne mu nekk événement ak Keba Familia ah, nekk huitième édition muy def li nga xam ne mooy nekk ndogu social mu nekk nag lu baax ndax artiste lii rek moo ko war euh, tey lal moo waraloon tànk yi fii. waaw keebaa dafa nekk koo xam ne dañoo bokkoon gox ñu dëkk mu yar ñu yàlla def mu nekk sa affaire bi jegewuñ ko woon mais am na benn moment boo xam ne ñëw nañ jege si ko parce que nit ki nga xam dafa dëkk ak yow te am benn affaire boo xam mi ngi commencé am da koy ñëw dooleel parce que loolu boo ko deful rek. defoo li la war daal tamit mu nekk sama nit daal daan ànd ak sama mag bu jigéen boo xam ne dafa génn àdduna chaque si loolu laa koy xoolee moo tax lépp lu mu nekk ak kay nitam dama siy dugg loolu moo waral tey ma ñëw si bés bi parce que bés bi maa ngi siy mus a teg sama tànk yàgg na koo def tey nag bu ma ñëwee ba yàlla def ma ànd ak Kéba ànd ak ku mel ne poko Sanke Amina fekkee ko damay gën a sant yàlla rek xam ne lii tamit euh, yokkute la daal. macha euh, yi benn la Sànke wax na ko pako wax na ko waaye tamit famille Keba Seck wax na ko euh, baax dimbale mbokkam mi waaye tamit lu mu am jox ay nitam. waaw loolu moom dëgg la daanaka sax moom du yor du yor dara si poosam quoi ba tax na xaritam yi muy jege ñooñ dañ koy xam ba nga xamante ne bu nit ñee sax ñoom ñooy mujjee jël di ko jox ñu koy ñaanal euh, gudd fan di ko ñaanal entourage di ko ñaanal musiciens yi yàlla lafal ko cat yokk ko ba nga xam dañ koy dégg partout dans le mont mu bañ a yem fii sax ba pare tamit euh, yàlla kattanal ko kattanal tam ñi muy àndal parce que nit ki nit rek mënul nit nit nit rek may boppam parce que oto bii ngay gis sax mu gaar dafa am ay nit yu ko defar am am am ay nit yu ko indi ba mu yegg si léegi bu loolu amee tam da ngay jàpp ne ñooñ ñooñ tamit si lañ bokk daal am na solo ñu ngi kontaan. waaw waaw di annoncé nag mas euh, Kebs Band ak Jéeri Ngóone benn booy bu ñaan Jéeri Ngóone maam Cheikh moo équipe bi ñooy fubal Kebs Band mercredi Sacré Cœur képp ku fa xam ne mën nga fa teew nga ñëw teew fa parce que à partir de vingt une heures vingt deux heures daal la waaw waaw di leen jaajëfal di am contentement di yaa seen teew bi yàlla ngeen ko yàgg teew ñu fekkee ko yàlla defal ñu jàmm wasalaam